werante wu ci ak moom jabar ju baax itam noonu la war a toppee ndigali jëkkëram kon ñett ñi ñoom lañ elif jaam bi boromam moo ko elif bind ko lépp lu mu am moom la lum ko sant waru caa werante naka noonu itam doom ji way juram moo ko elif lépp lum ko sant te du meram yàlla waru caa werante naka noonu jëkkër lépp lu sant jabar te du meram yàlla waru caa werante su fekkee ni jaam yëpp top nañ yàlla ci nim ko santaane nim ko bëggee doom yépp top seeni wayjur ci lépp lañ bëgg te du mooy yàlla naka noonu soxna yépp top seeni jëkkër ñu elif leen kon bu boobaa society bi dafay baax jamono dafay baax yàqu-yàqu du am waaye buñ demee nag kenn ku ne bëgg elif boppam la ko neex rek ca nga ko mën a elif digal ko ko mu def ko lu ko neexul mënoo ko koo defloo bu boobaa ñoom kenn ku ne mu ngi mel ni sa bakkan moo la yaa sa bopp su boobaa nag ñàkk kilifte bu doxee ci àddina rek dafay dal di yàqu faw ñu élifante faw yàlla élif ñu moo ñu moom lim bëgg ñu def ko lim tere ñu soli ko faw wajur yi élif ñu ñoo ñu jur li ñu sant ñu ànd ceeg ñoom li ñu tere ñu moytu ko foofu itam jëkkër yi élif jabar yi topp seen digal ndax doom yi barke que man leen a fàggul àjjana loolu yëpp dafa war waaye élifante bu amul rek bu àddina dafay dal di yàqu loolu moo tax islaam bi mu ñëwee <clears throat> dafa ñëw defar àddina yépp lépp lu mu tëral suñ ci jaaree àddina bi jag dara du yàqu waaye lépp lum mu tëral suñ ko bàyyee fële kenn élifatu kenn bu boobaa addina bi dafay yàqu ndax bakkan moo ñuy élif seytaane moo ñuy jiital duñ xam lu war duñ xam lu war a di su ko defee loolu kon <clears throat> moo tax islaam ñoo bàyyiwul ñu pour ñu dem ak suñ sago moom su sunna la boo xam ne bi saatun tus bawu duwaa yombul iidi moom nag gàtt la boo xam ne ñu ngi ko war a rendi ci yoor yoori tabaski boo xam ne imaam ñëw na ba julli ba pare ci la ñuy rendi tabaski watu tuttaxasu min al afnaami wa kadalika min al abqaari wal jimaali yi koy jël nag mooy xeet yi ci xar ak béy baa ñu jël ko ci li nga xam ne mooy nag baa ñu jël ko ci li nga xam ne mooy gëléem yooyu mooy yi nga xam ne moom lañuy rey di ko tabaskee bi ci gën wal aftalu minha adan sumal maiz sumal baqar sumal jamal bi ci gën nak ci tawaski moy xaar soko amul bey soko amul nak soko amul gelem fekke tawaski la lolu mo gën way su ad mak ak makka nak bi gëna reey mo gën gelem lañ jital soko amul nga def nak soko amul nga def xaar soko amul nga def bey da fofu la miskini gëna bari nit ñi dajé fa kon lolu nak bokore lim kaya def mooy tukkalu minha wa tutasaddaqu biha wa tubadalu biha al adaya wal karamat tabaski buñ ko reyee <coughs> dañ cay lekk ca yaam njaboot gi gannaaw loolu nga saraxe ca jox ci dëkkandoor yi ak miskin yi noonu lañ koy def tasaare ko mu jeex loolu mooy tabaski ndax dëgg-dëgg waxuñ nga rey ko rek denc ko mu jëm déwén loolu moom amul solo waaye li am solo mooy nga bokk ko nit ñi siyaa koog jullit ñi miskin yi seddoo ko ak ñoom boobaa nag tabaski duñ ci jaay dara wala yu baawu seyun minal utiyati laa yu baawu seyun minal utiyati duñ ca jaay dara laa laxmun wala jildun wala raxsun wala saaqun duñ ca jaay dara wala yu taxasu minha ujratul jasaar tabaski loo ca jaay rek tabaski ma yàqu na lan cay def mooy lekk ak saraxe duñ ca jaay der duñ ca jaay bopp duñ ca jaay tànk duñ ca jaay itam li nga xam ne mooy yàpp jël ca jaay ne ma jaay lii dem jëndee ko maalo baa ma dem jëndee ko diw boo ko defee yàq nga sa tabaski yooyu itam doo ci def dara lekk ak saraxe rek noonu lañ koy def su ko defee kon ñu bàyyi si xel bu baax hatta ki lay feesal sax doone ma fay ko ci yàpp mu feesal ma feesal ma jël der bi wala jël bopp beeg tànk yi muy sa fay wala nga jël tànk bi muy sa fay boo ko defee da ngay yàq sa tabaski loolu moo tax kon <clears throat> ñu di ko fàttali nit ñu bàyyi si xel bu baax a baax nga bési it la boo xam ne bési sant yàlla la koo xam ne kii bari nga njaboot waaye njëgi benn xar moom nga am benn xar boobu dana doy pour njëgeel yépp jëlee nañ hadis abu ayab al ansaari radiyallahu anhu si saaba yi la mu ne kaana waahidu minna yu daxi bi saatin an ali an nafsi wan ali bayti yi mu ne kenn ci ñun daan na tabaske benn gàtt pour moom boppam ak njabootam tamal waa këram yëpp ñu aju ci benn gàtt bi danga leen ciy yéenewaale rek su ko defee kon loolu dina doy koo xam ne kii da nga am ay jabar baa nga am ñaari kër te benn xar moom nga mën a am xar moomu lee moom ñëpp war nañ koy doyloo nga éegal leen ci mu nekk benn tabaski suñ fekkee juboo am na mën nañoo dajee ci kër gu mag gi ñëpp daje fa bés boobu indu fa bokk jëriñoo tabaski ma bokk waxtaan bokk bànneexu su mënta am itam benn xar buñ ko ñu daal di seet kër ya bu nekk nga doog dal di fay yóbbu su ko defee waaye daje bi moo gën ndax bésam bég la bésam fentali kóllëre la bésam jokkoo la bésam juboo la bésam joxante ay teraanga la loolu bu ñu ko defee borom kër gi dina sawar bu ko defee loolu itam ñu bàyyi si xel bu baax a baax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax na ne maa amila ibnu aadama yowma nahri amalan abu ilallahi min iraqati damm fa innaha la yaqaw min allahi fi maqamin qabla an yaqa ala al ardi sallallahu alayhi mu ne doomu aadama jullit mante defal yàlla ci bésab tabaski loo xam ne neex na yàlla ba yegg ci mu jot tabaski jot mu am jabi tabaski daal di tabaski ndax mu ne deret ji balaa moo laal ci suuf dana fekk ngërmaande yàlla daw ba egg ci moom yàlla wax ne si alquran ne lan yanala llaha luhumuha wala dimaahuha walakin yanaaloo taqwa minkum allah subhanahu wa taala mu ne moom yàpp yu tabaski wi dara bi ci yeggu ci moom wut ko deret ji itam soxlawu ko lim soxla ci yéen di ko ji lay daal mooy taqwa ragal yàlla gëm yàlla gi nga def yow xëy na njëgi tabaski mi moom nga yaakaaroon ne ci ngay jënd saako maalo bi nga war a ci weer bi wala nga jënd ci di wa di war a doxal weer bi yépp yàlla def na njëgi tabaski nga am nga wàkkirlu jëndee ko tabaski kon loolu ragal yàlla la gëm yàlla la ndax bu la yàlla dimbalewul <coughs> seytaane mën na laa wan ne boo ko jëndee tabaski tabaski gi passé <coughs> doo am dépasse nooy def waaye bu boobaa yàlla mooy bind jaam ñi te moo gàddu wërsëg yi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabin mubin yàlla ne amul benn borom bakkan bu dund ci kaw suuf mbaa ci biir lu dul man yàlla maa gàddu wërsëgam benn bu ne balaa ma koo bind moom ak jamonoom kon loolu yëpp bu fekkee mu ngi ci danañ gëm yàlla rek yàlla bu la joxee soxla laaj la joxal yàlla rek soo soxla waatee yàlla dina la jox kon lépp loo xam ne topp yàlla nga ko defee doo ci jëlee ci mukk loolu moo tax kon ñuy wàkkeerlu di jéem a def tabaski ñi nga xam ne noonu la ko yàlla santaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ne samminuha fa innaha min mataayakum yawma alqiyamati inda mujawasati siraat mu ne na ngeen fexe ba gàtt yi nekk yu rafet nekk yoo xam ne yu baax lañ am kàttan ndax bu yomal xiyaamee gàtt yooyu bu ñu jéggi siraat dañu nekk ay waruwaay ñeyal seen borom mel ni kay boy ñuy dugg di jàll yi dem ñu jéggi siraat kon loolu nekk na loo xam ne lu ama am solo la dafay ñu góor góorgóorlu li nga xam mooy loolu naka noonu saw sawmu yowma arafa sunnatun waajibatun or ba si arafa itam te mooy juróom ñeneenteelu fan tabaski bi bés boobu rek ku nekkul di ak ca su sunnaal nañ ci yow nga oor bés ba ndax boo ko ooyee yéen di sal sal wax na ne sawmu yowma arafa ahtasibu min allahi an yukaffira assannata almaadiya mu ne sallallahu alayhi wa sallam mu ne oor bési arafa so jot naa ci yàlla ci mbaaxam ne képp jullit bu ko def danañ la kaafaraal sa bàkkaar yi at yépp lépp lu ci doon bàkkaar danañ ko far kon nag ñi aj màkka ñoom waru leen waaye ñi nekkul màkka di aj ci àddina bi yëpp tey jullit bés boobu ñuy mu kàllaf jot a woor war nañ koo woor ndax suñ ko wooree koor googu sunna la bu réeree ndax or benn bés rek ñu baal la bàkkaar yi at mi yëpp ba delsi ci bés boobu loolu lu réeree la kon ci bési teranga yàlla defal jullit ñi la ñu góorgóorlu bu baax lim laaj ci teranga ñu ñaanal réew mi bési nangu ñaan la na ñaan ñaanal réew mi ñaanal njiiti réew mi ñaanal addina bi ñaanal jamono bi ñaanal itam diina ji ak nguur gi ñaanal kilifa yi ñaanal njaboot gi fu waaye la toll rek yàlla defal ñu jàmm da jàmm mooy li nga xam ne moo ñu baax yal na yàlla saxal jàmm ci réew mi saxal ko ci mboolem addina bi allahumma jal bilaadana gambia baladan aminan mutmainan yaataa risqa raqadan min kulli makan wa najjina min kulli bala wa qala wa taaun wa sinan wa waba ta inni zami dalika biladana xaasatan wa bilada almuslimina amma bi hurmati allahumma salli ala sayidina